bandaɓe tedduɓe dental padayer e gollodiɓe mum ko wayno dental fida et agence espagnol de coopération e dental biyetegal ofid ina ɗofta jagorgal cellal e ballal rendo ñaw corona nana e won leyɗele ha tenki noon e nder leydi men ndi ko ɗum ɗo woni noon maale ɗe ɓandu wuldu caɗɗele to banggue fofago ɗojjugol e muuseki goddol ngam dadda hen jagorgal kalfinangal cellal ene siftino on eh, hono ɗiɗo bagginali lawƴurɗe juuɗe mum ndiyam e sabunde walla kadi kutoroɗa hono alcogel so tawi aɗa ɗojja walla kadi aɗa isla hutoro mouchoir hono ñittorguel so tawi a gayni hen berleɗa ɗum e mbalis walla kadi kofa jungo ma e folon o ɗojja hen walla kadi isla hen ndentoɗa kadi tottirde junngo e nadde e nder yimɓe ngam heɓde heen kabaruji goɗɗi noddu e nde ɗo tonngoode 800055 ngam heɓde heen noon ko ɓuri laɓde e golle padaer e mballudi mum fewde e moon mbaɗe clique woni mana hono ñoƴƴe e ko rewata ɗo ko Par d'ailleurs, à la partenaire Noël Fidati, agence espagnole de coopération internationale, ani OFID, ou le ministère de la Santé, Tanyorolelte Baro Kono, ani Action sociale. Ninjangarum badingulu Noël mu coronavirus ti. Abe jamana siyaman kono, fafutatan na jamano fanan kono. Wodun kama, ni mandargo ninlalu sati al salon no. Ni balobe kandiring, ni nila kiliobe koreali buru, ni se le walla sasale bee la walla i le se i dimiŋ wo dun kama pur ka feere ke ka kisi wo bee ma ministére de la santé ko alse nin kuwolu ke men ye a lon ko wolu sa kisindi no ke i bulo ku ni safuno la feere ke fanaŋ alse alkogel na baalu bulu al yo fanaŋ maga ni wo bota je naalu be togotogo la walla al be tiso la alse a kaalu nonkonkuŋo kono walla alsi fere ka alsi musuwaro do ñinin nal ya a kaato alsi ta ha bula isafo ñamen pubelo la bari fanan nsenin fanan daniyal bulu kafo fanan kafo fanan alkanal bulo di ñogola bari fanan al kana la kafu o fanan mu ketale te almañan ka mendi ke nalu lafita kibariya kuten nu soton na kono alsi kiliro ke no 800 00 50 50 almiya sara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 Sa ak akit Mbolo mu bari di dajaloo ngir am yeneeni leeral ci 800 00 50 50 doo ci fay dara ku ci bëgg am yeneeni leeral ci activité ak gunge boobu Pader di amal nanga nga cliquer ci lien bi Le PADER et ses partenaires que sont le FIDA, l'Agence espagnole de coopération internationale et l'OFID accompagnent le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La maladie à coronavirus est dans le monde et notre pays n'est pas épargné. Voici les symptômes. Une forte chaleur corporelle, difficultés respiratoires, toux sèche, mal de gorge. Pour l'éviter, le ministère de la Santé vous rappelle ces mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou bien utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à jeter pour tousser ou éternuer et le jeter dans une poubelle. À défaut de mouchoir, tousser et éternuer dans le creux du coude. Évitez de se donner la main. Évitez les rassemblements. Pour plus de renseignements, appelez au 800 00 50 50. L'appel est gratuit. Pour de plus amples informations sur les activités de PADER et son accompagnement, cliquez sur le lien.